Euh, population bi yëpp la soxal waaye tam mi ngi commencé andi njàqare ak tiis euh, ci nit ñi imaam yow euh, feebar bi ban jàngat nga ci am. jàngat bi nga ci am mooy ni balaa la fi gule du fi mujj ñiy jàng yëpp di xool doomu aadama. allo Imaam. waaw mu mel ne dina dellusiwaat léegi tey jii ñu wax ko dalal nag ci waxtaan bi nga xam ne moom mooy saytu feebar bi di coronavirus ñu jël ab ndogal nag daaj ne li nga xam ne mooy julli jumaa yi dañ ko dakkalagum ci ab diir gu gàtt waaye am na benn wàll yoo xam ne ñoom it dañoo jàpp ne loolee xel nanguwu ko te it mënut a nekk ndaxte li nga xam ne mooy julli jumaa l'islam moom moo ko rek daal di demander même en temps de guerre sax lu mel noonu dañu ko war a def rek app digle la tey jii ñu nax cee séq waxtaan ak euh, imam Kanté mi nga xam ne moo nekk foofu ca Point E moom it mu ànd ci xalaatam mu ànd it jafe-jafe yu mel ni ci wàllum euh, àdduna ak ci wàllum dëkk bi bu amee yan taxawaay lañ ci nar a jël waaye yan matukaay la ñu nar a jël rek ngir feebar bi daal di fi jóge ni ma ko waxee woon sànq it dinañu waxtaan ak ñoo xam ne euh, ñi nga ca Grand Yoff ginnaaw cas bi ñu fa waxoon ba xam population ba tey jii ana nan lañu jëlee mbir moomu ak it yan mesure de prévention la ñu jël rek ngir xeex li nga xam ne mooy mbir mi imaam yaa ngi ñuy dégg. waaw dafa dawoon de. dafa dawoon waaw euh, ñu ngiy jéggalu ci dagg-dagg bi yaa ngi doon wax léegi du fi du mujj waaye du loo xam ne euh, dina fi jóge loo dellu dellu si waatal ci kàddu yi nga amaloon léegi. waaw dama ne woon euh, Covid 19 bi. Uh-huh. balaa la boo ko seetee ba seet ni yeneen balaa yi. Mm-hmm. balaa bu nekk nag nu muy nu ak ak la muy fekk nit ñi nu koy dund mm-hmm. waaye du fi guléet euh, euh, tey du fi mujj parce que doomu feebar yi nga xam ne ñoo koy joxe mm-hmm. euh, dañu nekk ak doomu adama te doomu aadama nu muy dundee yi muy lekk ak ya muy def yëpp day tax doomu feebar yooyu mën a bàyyeekoo fa ñu nekkoon léeg-léeg ci ay mala la nekk uh-huh. jàll ci doomu aadama dëgg la damay dal ak xaabaabal nañu fegu fagaru euh, surtout lu jëm ci wàllu cet ah, te tamit euh, déglu bu baax ñi nga xam ne seen xam-xam fa la a ak bi li ñuy wax mhm. euh, ñu jël sunu matuwaay mhm. te ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dimbali ñu ci amin Euh, Imaam ñu ngi ko doon wax léegi gouvernement bi jël na ay mesures de prévention lu ci mel ni nag euh, dakkal dem beeg dikk bi ci wàllum avion yi euh, nekk ñu nit ñi di raxasu ak saabu ak yoo xam ne yëpp wax nañ ko daal ngir bañ feebar bi daal di gën a law waaye it jël nañ beneen décision boo xam ne association des imams et oulémas du Sénégal ñoom ñoo ko jël maanaam dakkalagum li nga xam ne moom mooy julli jumaa xibaar boobu yéen ngeen ko gisee. waaw xibaar boobu di ko rafetlu di ko dooleel di woo jullit yëpp ñu ànd ci loolu ndax mm-hmm. euh, ndax boo seetee sax xibaar boobu dafa tegu ci boo xoolee kilifa diine yi am na ay ndaje yu bëri yoo xam ne fomb nañ ko mm-hmm. kon ñoom kilifa diine yi xam nañ ne feebar boobu am na mi ngi law ba ñu waxtaan ci gouvernement bi ba fomm ko kon ñi ngeen dégg yëpp ñi wax ay waxu caaxaan ay feebar bi amu feek euh, dugg na fii jaar na fii bu leen leen mm-hmm. parce que ñii seen kilifa ñoom xam nañ ne feebar bi am na ba bu dul woon loolu lu ñu fomm euh, jataay yooyu kon nag mm-hmm. léegi xibaar euh, euh, association des imams bi mm-hmm. li mu wax dafa ñëw doole mm-hmm. eku ci loolu yéen may dégg de ñu ngi lay dégg bu baax imam waaw te boo seetee boo seetee àddina bi yëpp te boo seetee àddina bi yëpp euh, ulema yi gën a mag ci àddina bi nekk ci association Égypte Azhar ulema yi nekk Maroc Arabie Saoudite Qatar Indonésie Turquie Euh, Tunisie xanaa ñoo ñëpp nag du ñu ay jaayil dëgg la ñëpp génne nañ ay fatwa benn fatwa bi la wax ne bu lor naree toll fii ci mhm. feebar euh, wala ay problème mu sécurité euh, dégg nga wala sax ay ay ay ay mhm. alors mu mel ni dafa xawaat dagg Imaam. ma reprendre. waaw waaw waaw foog naa ñi ngi ñi ngi doon dégg mais boo mënee dellusiwaat ci li nga mujjee wax léegi rek comme ça mu gën a leer. waaw dama ne kon ulama yu ñu xam ci mm-hmm. kon ma jéem a gaawal ah. waaw ñu jéem ko tënk rek. waaw dama ne kon boo xoolee ulama yi gën a mag ci àddina bi yëpp. ci mhm. réew jullit yi. Mhm. Turquie Maroc Arabie Saoudite Égypte nga xam ne Azhar mooy université islamique bi gën a mag ci monde sunnite bi. Mhm. ñooñ ñëpp génne nañ ay fatwa di wax ne bu lor amee lu mel ne feebar. wala insécurité wala ay tremblement de terre wala ay ngelaw yu foor euh, mën nañu aj julli ku nekk julli sa kër te loolu ci ay textes yu wóor la tegu ci ay xadis yu wér péng la tegu ci atte fiq yu leer la tegu kon euh, képp koo xam ne jàng nga te te te yërëm nit ñi euh, te bëgg protéger askan bi ci feebar bii di law ak façon bu gaaw bi muy lawee euh, ndax jegante bi ak cet bi di nangu atte bu mel nii te di topp li wax. d'accord ci foofu nga daaneel imam foofu laa lay fekk si parce que am na ñoo xam ne nag euh, d'accorduñ ci ndogal bi ndax ñu ne li nga xam ne moom mooy julli jumaa yàlla moo ko recommandé même bu fekkee dañoo nekk sax ci wàllum guerre dëkk bu am guerre loolee dañu ko war a def loo loo ciy tontu. man ñuy wax loolu seen xam-xam jaaxal na ma lool parce que bu ñu demee ci téere fiq yi euh, lépp lu lislaam santaane. Euh, mhm. dafa am charte yu muy àndal charte yooyu bu dajewul euh, donte woon santaane rek doo ko def. Mhm. tey ji jëlal azaka azaka doo ne loo am ci alal rek nga génne ko waaye bu fekkee dañ naan la da ngay am nisaab day am fu mu toll nga doo a génne. bu mhm. tollul foofu doo ko génne doo ne azaka farata rek nu ma neex laa koy génne. aj màkk il faut nga am wér. pour mën a dem il faut nga am alal. Mhm. bu la leew doog mën a dem. Mhm. waaye tam il faut yoon bi nekk yoon bu wóor. Mhm. nga am sécurité bu dul loolu kenn du la wax nga xaru. dëgg dem par force. tamit julli ajjuma boo demee ci téere fiq yi ñi jàng ñëpp xam nañ ko moo tax ñuy wax loolu jaaxal nañ ma euh, julli ajjuma tam am na ay charte dañu ne bu fekkee mm, da ngaa nar a dem euh, nga mër faa jëlee feebar wala faatu wala sa njaboot si ginnaaw ñu faagaagal leen wala sax sa alal euh, nga njort ne boo demee nit ñëw gannaaw la dugg sa kër jël sa alal. Mhm. yooyu yëpp boo demee ci yeneen dañ lay wax ni bu yooyu amee euh, dañ lay may nga jóg euh, te bàyyi euh, ajjuma bi kon di jël ay exemple ay yàllaa ko santaan mhm. rek kon foog ñu def ko loolu ñàkk xam ne jëlal koor boo jëlee koor tamit mhm. boo demee ba boo boo jëlee boo jëlee koor tamit boo demee ba feebar dañ naan la mën nga euh, aj koor gi wala ngay tukki mhm. kon santaane yàlla bu nekk am na ay charte yoo xam ne bu dajewul l'islam daf la ciy jox beneen euh, alternative kon euh, li ma la wax ci hadis ñi wax mhm. naan lu yàlla santaane la ñoom gënuñ koo xam yonent bi dëgg la yonent bi salaa sallam moo toog ngelaw foor loolu muy taw bu taw lu bari noddukat bi nodd ba xay yàlla salaam mu ne ko waxal sallu fi buyutikum wax leen julli leen seen i kër. Mhm. loolu xadis bu wér la. Mhm. ñi ñi jàng xanaa gisuñu xadis boobu wala dañu weddi xadis bi. Mhm. kon nag ku bëgg a gën a xam yonent bi alquran ba gis xadis bu noonu ba pare naan waaw santaane yàlla la moom la ñu war a def loolu moom daf ma jaaxal loolu rek loo tiital na ma trop sax. d'accord balaa ñuy tàggatoo ak yow dinañ la laaj rek yu mel nii muy musiba yu mel nii wala balaa bu amee ci benn euh, dëkk wala ci askan yan lan lan la lislaam digle ngir rek ñu daal di koy def. li mooy. lépp loo xam ni day lawal feebar boobu nga bañ koo def mhm. yow sa bopp parce que amuloo droit di lor nit ñi mhm. beneen bi tamit mooy yow lépp loo mën a def pour protéger sa bopp nga def ko ni ko yéen sa salaam waxee parce que am nga droit ci protéger sa bopp mhm. laa darara wala diraar loolu yéen sa salaam wax euh, la euh, nga fagaru euh, fegu alquran moo ko wax xudu xidrakum na ngeen ngeen dégg loolu dafa nekk buñ génn ku fa nekkul bu fa dugg. Mhm. loolu kay li mu jublu mooy pour feebar bi bañ a law nit ñi di ko euh, joxante. Euh, kon loolu yéen sa salam ci boppam moo ko wax ba pare nag léegi jox ñu ay ñaan. nañu ñaan loolu euh, bu ko defee nag léegi fagaru fegu te ñaan yàlla mu musal ñu ci loolu mooy attitude bi nga xam ni moom la jullit bi war a am waaye ñuy wax naan waaw nañ ñaan rek kon dafa mel ni ñoo gën a xam yonent bi saa sallam lislaam ndax yonent bi waxul ñaan leen te bërëb bu leen neex ngeen de mhm. dafa ne ngeen ko dégg bu leen fa dem te ña fa nekk buñ génn kon xanaa ñuy wax nañ ñaan rek te julli juma eh, yàlla baax na xanaa ñoon ñoo gën a xam yéen bi salaa la eh, alquran ak ak lim ñu mm-hmm. imaam ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la rek nga wax sa dernier moo daal di sa message ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu à travers Senego sama dernier mot mooy que nañu responsable. Mhm. nañu responsable feebar buy law la mi ngi faagaagal ay junne junne nit doo fi toog di xaar ba ñu bëri faagaagal mu faagaagal leen ñu bari feebal te réew mi attanu ko suñu système de santé attanu ko. Mhm. suñu euh, euh, koom attanu ko ñun loolu dañoo bëri ci réew mi nit ñi tiit nañu kon nañ fagaru du ñu bàyyi ba affaire yi egg foo xam ni ay doomu jàmbur ci biti ñoo nar a ñëw di ñu dimbali. Mhm. ndax duñ ko mën a attan ñuy doog wax nag léegi nañ def lii nañ def lii kon nañu responsable. ñu aja gi julli yi mhm. ak lépp loo xam ne rek day tax feebar bi di law cet bi nañ ko gën a euh, toppatoo euh, téye xale yi ci kër gi ku nekk booy génn na farata war a tax soxla boo xam ne mënta ñàkk nga mhm. génn déglu borom xam-xam yi nga xam ni ñoom ñoo xam mbiru feebar bi mhm. euh, luñ ci wax ñu def ko loolu lay woo jullit yi d'accord imaam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax laa maa ngi leen di nuyu bu baax a baax naa kenn jërëjëf mu nekkoon nag euh, Imam Kanté wax na lu am solo loo xam ne rek euh, jëm na ci wàllum feebar bi waaye taxawaay it boo xam ne lislaam war na ko mën a amal saa